soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekkat ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent de si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. su ma bëggee wax novembre eleven rek suma xol dina jeex ndax dinaa xalaat lu bëree bëree bëree bëri. ñu ma faate Basiru ba ba ma fekkee ko du ma mun a faate ni nga alaaji kaañu ñul si faal ak a kem fela doron ko bii len koto maa faata moo yela moo faa a la ngaa faa ay naa sey kotenke a la haajul nte kaltañin na ko te yan fala fo ni ŋa ñootola ko na luŋo men janin fama ka ban anata koyamala ko lieutenant bakar mani ñancuwata kirin ni sojarol la fa bi nga koda dayele nga sojarol men jaay e mo worowla si nin at jibun sai fana be balo tuma do ba ku do la tan ka ta lalanka badara fodi tul badara la bakke badara la bakke ba saya o be mo bele kunna men ye basiru akida ko sayingol ɗol fana bi je manta balori no peŋol fayi koye nke fatal nke ta baluwo to na be baluwo ita ñiŋ feŋol bondi la kana ka samba naŋ kana ka dini waaw eh, Bakary mooy suma tur eh, Badji Bakary Badji maa ngi juddoo Serekunda suma eh, yaay jën la daan jaay so dam daan time boobu nangaan Joswang foofu la daan utee jën and mu ko daan jaay ci marché ya, ba marché ya, bu ndaw bi nekkoon Joswang so ñun ñu suñ bopp saat one time dañ ko daan dem dimbale ji pour eno enu jeni from all Joswang andi ko kër président Baro xam na ne xale bu man xale bu set loxo laa taami maire election ba ñun suñ parliamentary election bi 2017 ministre si ñoo daan génn di campagnal candidate local government ministre si ñoo daan génne di campagne candidate si léegi ñu man ma dem ñaamela pour campagne suñ MP ñu ne man waruma génne te ñoom seen nit ñi ñoo doon génne te amuñ ci problème kenna moo binda on Facebook te gis naa ko bëgguma wax turi jàmbare waaye gis naa ki ko njëkk a binda nay leer rek nen wax non non am nga loolu fake account la sax dafa ah, problème waaw fake account la moom moo binda ne eh, naka he went to Nyamina on promise stadium and never went back there but kenn du la génneel video mhm. ou an audio mhm. of man fi ma waxee ñaamina dama leen dig stadium amut Eh, pour nga wax ne man dama nangu pour nekk ab Barrow ministre waaye nag du ma du ma defend policy am du ma defend euh, programme am mënut a nekk I mean so people might see different but that's the reality. so léegi yow NPP nga. waaw 100% nga ne waxal gars yi dégg <laughs> waxal man Bakary Badji. ma ne. Ah. loolu wax naa ko multiple times. waaw waaye waxalaat fii moom laa la wax ni may la NPP la kay moom. ñaata percent. Good afternoon, good evening, wherever you might be watching the Gambian Talents TV from. Uh, we are live here in the uh, village uh, where we um, come to do a donation, um, especially the less privileged. Uh, we believe that we have a role to play in our society. And the role we have to play in our society is to make sure that everybody smiles. As you can see it, we are right here in there and some of the kids are not even wearing uh, clothes. And this is something that is so painful. Uh, this is something that every parent want to see their children wear clothes, we have shoes, and the list goes on. But as you can see, none of them are with shoes. None of them, they're all with their barefoot, and this is very, very, very sad. And as government Talents Promotion, we believe that we should put smile on the face of um, the people. So as you can see in our car, we have uh, boxes, different boxes full of clothes. So we will be going to different, different places around, you know, um, the West Coast area to help the less privileged. So Mbokayi, uh, gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi nii eh, si fi nga xam ne nag ñu ngi ko ooyee Ndiye Village eh, ñu ñëw fii nag eh, si jigéen ji nga xam ne dañ ko faral di ko jàppale di mère Clara mère Clara nag nekk yaay si ñu bari waaye it nekk na koo xam ne amut tey saa su ne daf di ut ndimbal si yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan tey nag Gambian Talents TV ñun nag dañ am. promotion boo xam ne dañ ko dee def mu nekk di clothes drive clothes drive bi lan moo ko sabab moo nekk ko dimbale nit yi nga xam ne Ida amul yëre oo seen loxo jotut gannaaw tey nag ñu ñëw fii si Ndia village ah, yéen a ko gis ndaw yaa ngi nii taxaw ah, ñoom nag ah, solu yëre kenn si gars itam solu daala tey seen ay waajur xëj na amun moo tax it defalun leen ko nekkut loo xam ne lu gars yi bugga la soo tey nag ñu ngi nii ñëw fi nga xam ne nag mooy place bi dinañ ñëw nag wane li nga xam ne mooy yëre yi nga xam ne am nañ ko li two boxes naa gis ni euh, si kanami moto bi euh, ñu ngi fa amee another extra two boxes so box yi euh, dinañ leen ko jox si séddaale leen kon ñoom ak seeni famille seet naka la mo rafete kon nag jox leen ma seeni nopp ma wanal leen promotion bi ak donation bi nga xam ne moom leen nar a jox gaay si kat yi yéen a ko gis yéen a gis yére yi bi nag moom ak doomam ñu ngi mbaɗigol eh, biɗum mol felali en fintitodula to mum ke ketodulate mum yalan ko eh, mol mil yalan wallal eh, bulol mi koɓen wallal bañin dula to gamien talent tv dun nata keke moti mum yalan ko iko foy se kato dango ke kaji ko mol mil yalan koye bulol mi kol ɓen mol setel makoye no wala ñin ko sababu wala en fintinde bi ate dulañin to pour kana ñin mol yakanitel makoye kaji ko mum bakela dum feŋote wotetel batandilañin dula keto mollel to mulyalon ko uh, ni nata fang yeje uh, dindugol mulyalon ko wollel bije fang uh, pour ye samato nyim fango sota kolyata ani uh, mumba kela dum fengote a manke koye ma soto bari ngalon ko uh, kenya keña wolewa tinnala abo ma pour ye kuwo do soto woleya tinna gamen talent tv nata bi uh, pour que ñimmol sewondi kaje ko uh, lafita mun na isa soto uh, mbañinke kan ne ala nin kila kamma mantara ke kan ku kamma uh, bari doron kaje ko molmel yalan ko wollel mi uh, kol coal a wol sake molti mul yalan koy fanan sa sewo bake uh, bayri ala alay wala fo ni asoto ye moñol mako wala tena a ah, Gambian Talent TV amanke ah, doron ka mol educate long bari fanan ka mol ma ko ni fanna jamala uh, mo soko mol mul yalan ko wallal man uh, bulol me kol a coal dula uh, to nyinto ngal fele keta molt mul yalan koy kontanta bake uh, iba bagasol jindi kan sainten kaje ko gasol jindi kan kaje ko eh, itel kontantale nal yaje fangal bajela uh, iba bagasol samba kanyame dinungol beni sewo wolong iba bori kang uh, ah, nyunong badi yati nyunong kankili yati uh, Gambian Talents TV buka dan ku kilongala bar kuol malyalong ko nital sawol keno kaje ko uh, mol malyalo wallal ba fanna jamaate sa kontaan Clara mu ngi di yére yi nga ko ak as you can see right now uh, this is uh, the old woman uh, she's right here um, looking at the different clothes that uh, we bring for her and her family as you can see the kids are very very happy right now every one of them is smiling and the old woman is also dancing another old woman just came in as you can see look at the old woman who just came right now so another beautiful beautiful beautiful environment right now we are in their house after meeting them some way out clothes. And finally, after giving them the second-hand uh, materials or the second-hand clothes, they are all dressed up very nice and they're looking beautiful and smile on their face. We're glad to change the life of people, and this is what gambling talents mean: putting smile on the face of people. gambling talents, we believe that everybody should smile. As you can see, the old woman with her entire family, one of them is pregnant, who happened to be the in-law. She's pregnant by the woman's elder son. So these are the family. As you can see, all of them with their clothes. My name is Sang. Sang, what's your surname? Prera. Um, Sang Prera, where do you live? I'm living in Denville. All right. Sang, how do you feel when we are coming and now you have new clothes with you? Now I feel happy. I'm happy to my clothes. You're happy. Yes. You want to have more? Yes. So right. So muna wa? Dama dama dama kunta. Dama kunta, buba. Wa buba. Lo nyanal kila jox yere yi. Fi mu am aduna. Ya ma rek. Dega nga angal. Dedet. All right, no tuda? Antoinette. Antoinette, Antoinette naka? Mende. Antoine tey ñu ñëw sa kër euh, ñëw indil la ay bagages noo gisee. ah dama kontaan trop man dama foog ne moom dafa fàtte ñu waaye fàtte ñu ñu kontaan trop ñun ne moom si moom si ñun. Mhm. Mhm. Ah, kontaan bu baax a baax. Mhm. <laughs> waaw. Antoine ne yow it jigéen bu wérut nga maanaam ndey kuma nga ñu ngi la indil ay bagages yi doom yene yi filim batu ak yeneen ak yeneen noo fay. ah kontaan naa si bu baax. nag ki nga xam ne nag euh, mooy borom kër bi euh, ñu ko ooyee Yaa Clara euh, na nga def meer noo tudda jàmm rek man kontaane naa bi ma ñëw rek ma fekk ngay ñëw fii léegi ñëw ngeen tey nii ngay si ma yére aw ma lu may jëndee yére léegi am naa yére kontaane na bu baax ni nga isee lii kii bi kees bi ba mu fees kontaane naa dama kontaane torop su nekkul suma tànk bi daf dee métti damay fecca fecca bi nga xam ne soo ñibbee nga xam ne yéen a nekk sama yaay yéen a nekk sama baay parce que aw ma mbooka aw ma mag yéen yéen yéen moo nekk sama mag yéen moo nekk sama yaay yéen moo nekk sama baay kontaan na trop ni nga dimbalee ma nak sama njaboot yi maa ngi xalaat lu may def lu muy sol ci seedaa bi waaye fi ma nekk nii sant naa yàlla. dama la gërëm torop seen liggéey bi na dem ba si kanam day yokk mu fay leen ba ñu faate ko fayaat loolu laa xalaat si yéen euh, yéen fii euh, buñ ñëwee ñu ngi fekk yéen si xale yi solton yére euh, loolu lu tax ah, ñu def yaram neen ah am ñun lu ñuy jëndee li yére moo tax ñu def yaram neen xam nga ñu nu nekk ni ñu ngay dem isikul am ñu daala su su kiyee nga dem ci ñëwkat yi ñu ñawal ko daal waaye fi ma nekk ni li nga isi nii dama kontaane torop tey damay nelaw waaye dama xalaat xale yi ñu muy sol dem isikul waaye tey sant naa yàlla fi ma nekk nii. nit yi nga xam ne ñu ngi seetaan suñ la doon jàppale loola na wax ñu jàppale la. ah li ngay jàppale man nii ngay jof li may lekk ak sama rab ndambay noppali naa. moo tax dama wax kii ci suba si xaaral ma dem ma ma dog sibi bi ma ñëw rab dambay ñu dem jëndal xale yi li ñuy sol dem iskul ngay ñëw nii man xaw ma fu may dem sax dama dama xat fi ma nekk nii waaye suma xool bi dafa seeda boy fi ma nekk nii. loolu am na solo man ko loolu am na solo yow lan nga dee liggéey. rab dambay rek mooy suma liggéey. daa may nekk nii mooy sama liggéey mooy sama liggéey su ma rabee ba pare ma dem jënd maalo ma lekk ak xale yi su ma rabee su ma demee jaay ma am dara ma jox xale yi ku nekk loncam ak bukk xale yi moy mooy sama xalaat. ku la bugg a dimbale euh, si lan la laa dimbale ak lan mooy namba bi. Ah, ku ma bugg a dimbale li ngay may man rek baax na. su dee maalo su dee dara pour ma jox xale yi kontaan na mm-hmm. mu baax. Mm-hmm. jox ñu nomba téléphone bi. 613 wan 613 9301 613 9301. Apple service 711 4220. 711 4220 711 4220 mooy nomba Clara bi. dërëj euh, Fatou. di sant yàlla bu baax ndaxte nekku tey moo nekk benn yoon bu fi ñëw ñëwoon neen fi waxtaan ak moom ah, ba tey rek di ko laajte yaabooy yëre yi ñu indi tey ban njëriñ la am si yow ndaxte yàgg neen di ñëw fii nii. am na njëriñ si man kontaane na bu baax a baax benn yëre sax amuma ko waa tey am naa lu may sol su ma sangooy ma saase kontaane na bu baax kontaane na lii ak daalay awma daala lu may sol. léegi tey sol naa daala li li li ma xalaat tey yàlla moo ko xam waaye li nga def tey yàlla moo leen fay kenn mënu leen fay yàlla moo leen fay waaw ñu ngi nii jaabang euh, ñëw si benn kër euh, ñu fekk fii ab soxna moom it euh, comme ni ñu ko waxee rek Cloth Drive bi nga xam ne Gambian Talents TV mu ngi koo def di jàppale ñi nga xam ne ay niw doole leen ñu fekk fi ñoo xam ne tamit ñoom it lii dinañ ko soxla moo tax it ñu ñëw jox leen ko comme ni ma leen ko waxee woon demoon nañ diya ah, dem nañ si benn place soo nag yére yi before dañ daan dem taxaw si mbeera bi jox ko ñiti ba léegi dañoo fekk ñiti si seen kir jox leen yëpp ñoom ñu séddoo ak seen mbokk yi ak am di jaama yi na nga def noo tudd man Mariama Cissé. Mariama Cissé man kana ah, maa ngi eh, raba raba rek pour dundal njaboot yi rek waaw. Ah, tey Gambian promotion moo ñëwoon may la yére yi baag bi mbuus bi ba mu fees dal ak box bi ba mu fees dal ak ay yére yére xale nekk fa yére mag nekk fa no ko gisee. te lii kay kana kontaan rek. ak ñaan waaw maa ngi ñaanal daal yéen ak borom yépp yal na yàlla yóbbu liggéey bi si kanam waaw yal na yàlla yokku yépp parce que salaatul waaw ñu ngi kontaan moom kontaan nañ parce que ku ñëw sa kër moom mu ngi mu lay jàppale yow sa njaboot loolu moom kontaan bu rëy la waaw soo su ñaa soo ñaanul saa yàlla dina ko ñaanal léegi ñu ngi ñaan yàlla mu ngi ñaan waaye yal na yàlla àggale ñaan bi si jàmm mm. waaw. Uh, yow dañ faral di am lii nit koo xam ne xamuloo ko mu toog rek ini la ay yére. te bii moom maa koo ko doog a am tey tey waaw waaw waaye nag ñu bari nag ñu ngi jàppale parce que demba demba saa suma jëkkër am na ku ko kool fii nii benn paa mu ne ko ñëwal waaye xamul waxul ko lalla de dafa ñëw rek mu ne ko tuuse laa la jox mm. saaku maalo. saaku suukar bidong diwlin ak saaku pompiteer mhm. waaw. Euh. jamono ji yére yi nga xam ne jox neen la ko lii lan la moo def si yow. ah lii kay kana kontante rek waaw parce que lii moom baax na torop c'est gi nga seddaay baa ngee ñëw nii léegi fu mu nekk nii dama waroon na dem jëndal yére yi eh, xale yi pour yére sedda waaye gi nga fu mu nekk nii yàlla indi na ko mhm. waaw léegi maa ngi leen ñaanal rek mhm. yal na yàlla yokk. ngeen dem si kanam ngeen mën a jàppale nit ñi jërëjëf. looy wax nit yi nga xam ne yàlla may na leen te it nekkul di def lu mel. ah loolu kay eh, lu baax rek parce que yàlla su la mayee moom ngay dem di jàppale nga tànne ah yàlla du la bàyyee noonu de dangay continuer rek dina dem kanam rek. jërëjëf kon nag Gambian Talents Cloth Drive leen wax ah, ñu fekk fi tamit beneen jigéen dinañ ko bàyyi moom it ah, mu waxtaan ak askan bi na nga def. jàmm rek. noo tudda. Aïssa. Aïssa naka. Ba. Ba Aïssa noo gisee yére yi nga xam ne indil nañ la ko. yére yi xanaa baax rek. Mhm. baax na trop. waaw. Ah. nit moom sooy jàppale ku amul doole moom. Mhm. yàlla dina la jàppale. Mhm. te yéen ngeen taxaw pour dimbale ñu ni doole yi waaw yàlla na yàlla yokk seen jàppale bi mu jëm si kanam waaw. waaw uh, all the time yéen a ngi seetaan uh, télé bi nga xam ne mooy Gambian Talents TV uh, saa su ne ñuy def lu mel nii jamono ji nag um, nga gis ne ñu ngi bàyyi yu bari ñu ñëw si seen kër fii di leen jàppale ak ay yére xit na tuuti na waaye dina am lum leen a njëriñ noo gisee loolu. tuuti na waaye nit ki lu nga am loolu ngay joxe waaw lu nga am loolu ngay joxe soo ko mayee lu tuuti bu baree dina am waaye nit sula la éenee lu ndaw doo si am su lu baree waaw yal nañu yàlla jàppale ñun yëpp. Euh, mus na am lu mel nii nga toog rek nit koo xam ne xamuloo ko rek mu ñëw dugg si sa kër ne am ma may la ay bagages. déedéet loolu kay mosut am mosut am mu ngi doog a am ni waaw maa ngi ko doog a gis nii fii waaw. Euh, lan ak lan nga fa ne moom leen mën a jàppale askan bi. Hmm? ah xanaa ñu ngi kontaan rek ñu ngi kontaan rek ñu ngi kontaan rek waaw yal na yàlla jàppale yëpp doomi aadama yëpp ku nga xamante ne mu ngi niw doole mu ngi am alal boo jàppalee ku amut yàlla daf laa jàppale rek doo musa dellu gannaaw dangaa dem si kanam rek waaw. Euh, yére yi lu moo def si njaboot bi. xanaa dimbale rek loolu kay moom dimbale rek la ndax nit soo amul lu nga jënd yére suñ la mayee yére boobu daf laa gën a rek. jërëjëf ok baax na. bii Mame Traoré la. Mame Traoré waaw. dégg nga soose. waaw soose nga. waaw waxal si soose noo gisee lii. alhamdulilah fo ala tento ni kayro ala ma tol fana me nyin kayro nyin siba kono min ba tamadul ala ma fana harje ba so toje ala ma nyin sifa ala maye continuer yalla kay bana incha allah la mais saa nga yaa bantale. ak yéen a ko gis mbokk yi Gambian Talents TV. Mhm. waaw gis nga léegi am nga. waaw léegi jéena waaw gis ngeen ah, mbokk yi ah, famille bi ngeen gis ni ah, moom leen ñëw jàppale ku nekk nag na taana bu mu bugga boo leen bugga ngeen yóbbul ko seen family members wax naa leen ko Gambia am na koo xam ne yaa ko tane am na koo xam ne moo la tane waaye am na koo xam ne keneen mun na koo jàppale ñun nag suñ télé bi loolu la moo def di Gambian Talents Promotion te na ñu ngi ñëw fii ba Jabang di jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekk ma bàyyi ay dama wax loolu si it's very important so the rich people should look back and help uh, the poor because we have a lot of vulnerable people in the Gambia. People are not helping them. We are not uh, washing our back, and I think it's very important for us to help each other because uh, the Gambia, as I always say, if we help people, we will move the Gambia forward. But if people are shouting that we need to move the Gambia forward and we are not helping each other, then we'll find it so difficult. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong be na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñett fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. painting and design SB painting and design dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni da ngeen am seen kër ees yéen nga xam ne ni da ngeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo ngoon ak euh, wàllu peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Ouyoushi Seku Bojang xarañ lool si liggéeyam euh, xam li muy def mun ko euh, te di ko def ak SB Painting Design lépp loo leen ma si xeetum design paint and everything li ngeen soxla si seen boutique seen néeg seen kër yi ees yi dama ne jokkale nag moom si 331 34 15 331 34 15 nekk foofu sa Serekunda ci Kistown jokkoo leen ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy SB printing design ñun designer leen ba seen xol sedda lii sedda sa xol ñun loolu moo ñu soxal ak SB printing design taaral sa kër taaral sa dëkkuwaay waaw Bakary mooy suma tur Badji Bakary Badji maa ngi juddoo Serekunda suma yaay jën la daan jaay so dam daan time boobu nangaan Joswang foofu la daan utee jën and eh, mu ko daan jaay ci marché ba marché bu ndaw bi nekkoon Joswang eh, so ñun ñu suñ bokk saat one time dañ ko daan dem dimbale ji pour eno enu jeni from all Joswang andiko ko kër président Baro xam ne xale man xale bu set loxo laa taami maire election ba ñun suñ parliamentary election bi 2017 ministre si ñoo daan génn di campagnal candidate local government minister si ñoo daan a di campagne candidate si léegi ñu man ma dem ñaamela pour campagne suñu MP ñu ne man warumaa génne te ñoom seen nit ñi ñoo doon a te amuñ ci problème kenna moo binda on Facebook te gis naa ko bëgguma wax turi rek waaye gis naa ki ko njëkk a binda nay leer rek nen wax non am nga loolu fake account la sax dafa ah, problème waaw fake account la moom moo binda ne eh, naka he went to ñaamina on promise stadium and never went back there but kenn du la la vidéo ou an audio mhm. of man fi ma waxee ñaamina dama leen dig stadium amut pour nga wax ne man damaa nangu pour nekk ab Barroso ministre waaye nag du ma du ma defend policy am du ma defend euh, programme sami mënut a nekk I mean so people might see different but that's the reality. so léegi yow NPP nga. waaw 100% nga ne waxal gars yi dégg <laughs> waxal man Bakary Badji. ma ne ah. loolu moom wax naa ko multiple times. waaw waaye waxalaat fii moom laa la wax ni may la NPP la loolu kay moom. ñaata percent. suma ma bëggee wax novembre 11 rek suma xol dina jeex ndax dina xalaat lu bëree bëree bëree bëri. ñu ma fàtte Basiru ba ma fekke ko du ma mun a fàtte. ni nga alaaji kaañu ñul si faal tuumay aka ken fela doron ko bilen koto ma fata mo yela moo fa a kontela nga fa ay na sey kotenke abala haju nte kaltañin na konteta yam fala fona nga kaburoo kaburo kono lomel janin fama ka bang anata mala ko leftan bakar mani ñancuwata kirin ñin sojarol laya faa bi nga koda dayele nga sojarol men jaay mo woro wala si ning ati jibrin sey fana be balutu tuma ndo bata kudo la tanta ka ta lalanka bata da fobi tul la la ba saya o be mo bele kunna men ye basiru faa hakkille ko sayingol ɗol fana ɓe jemanta balori ŋoppegol fayi koye nke fatan nke ta baluwo to na ɓe baluwo to ita ñin feŋol bondi la kana ka samba nen kana ka dini